bon euh, fës na bu baax a baax man ci Ferguson lay laaj doore boobu laaj mu ñeel euh, criminalisation euh, homosexualité fii Sénégal ñu gis ni waa ànd sàmm jikko yi ginnaaw ba ñu introduire li nga xamante moom mooy projet de loi bi ci assemblée nationale ñu jot ko rejeté ba tey bàyyiwo ñu amal nañu ab conférence de presse xam ni dinañ gën a fësal seen combat ci lu nu mel gis nañ tamit ki nga xamante ni moo di njiital réew mi di président Macky ki démb ni mel dem ba xamle ni Amina Ba moom mus na taxaw ouvertement ni euh, fileeg mu ngi nekk njiital réew mi wàllu góor jigéen moom kenn du ko a légaliser na déjà loi bi xamante ni da koy am na ay daan mu ñeel acte contre nature kon gis nañ ni lu ni mel en quelque sorte faux débat la sa gis-gis par rapport lu ni mel nga xam jur na coow. waaw waaw man pour man wax li président wax laa mën a gëm moom laa mën a dégg parce que dañ ko vivre depuis très longtemps ci yëpp bu ma a taxaw que ça soit des tribunes internationales ci réew fu mu mës a taxaw ni man Macky Sall tant que maa ngi nekk président de la République loolu bu ñu ko fi tudd sax. Mm. respecté ko aussi euh, bon kuréelu nag euh, ànd sàmm jikko yi defe naa ñun ñëpp ci doon bokk. Mm. ñëpp bëgg sàmm seen jikko. c'est pas parce que da ngay ubbi sa benn association rek ni kuréel sàmm jikko euh, defe ne yow la ñuy topp. Ah. mais ñun ñëpp war a toppante. ay charte la. Mm. yu ñuy teg war ko topp baag. et que moom moom la ñu dénk réew mi ci ndogalu yàlla. Mm-hmm. tey su taxawee su fekkoon ne sax daf nu ko wax ñun rek mais partout ñëpp dégg na ko. Hmm. président États-Unis dem na ONU dem na. mais jàppoon ni même président euh, sortem bu demee bi dafa xaw a yeex c'est-à-dire même su fekkoon waxoon na ko ba ñu demee ba coow yi jibaat ba ku ne di ci wax ba imaam yi ci jàkkee di ci xutba est-ce que gisoon da cee mun a àtt. mais imaam yi nag ak léegi léeg-léeg nga gis ci imaam yu xutba yoo xam ni. Euh, bee boo ñu waxati ne Gaston waxati na mais daf ci am imaam yoo xam ni euh, dangay waar imaam ya fa nga tuddee da ngay waaw. imaam ya fa nekk di mu wax ak ñoom. Mhm. xam na ni leen président wax lu yanu maanaa la président bu wax lu muy nekk di wax di waxat di waxaat bi affaire bi changé ba nu indi bëgg a bëgg yëngalaat affaire bi et puis fi ñu koy yëngalee bu nu ba bàyyi élection di jubsi si ñuy yëngal mel ni ay affaire chantage wala yu kenn xamul imaam yi am na leneen lu ñu war a xutba am na leneen lu ñu war a ah, xutba ah mais wàllu góor dafa amul. non cest à dafa amul. su fekkoon ni am na sax mais yow kii nday liggéey gi ki nga xam ne mooy njiitu réew mi moom la fi yàlla teg taxaw na ni lii du fi am nga bëgg a créer pour mu fi a créer pour mu am fi. nee na li ngeen def ni tooñ la te yàlla bëggul tooñ. Ah, yàlla bëggul tooñ te yàlla bëggul man seetaan naa benn vidéo benn euh, imam boo xam ni li mu doon wax est-ce que kooku imam la muy nit sama portable mais day wax wax yoo xam ni bon imam sax santu nu ko loolu imam dañ ko sant muy jéem a boole nit ñi di jéem defar. bu mu même su gisee bon na jéem a naax naxanteeg nit ñi xam fu koy jaaree mais taxaw ci loo xam ni dara wóoru ci yow ki nga dénk réew mi à cinquante huit pour cent taxaw na ni lii du fi am. Mhm. bu la kenn monté ba nga taxaw te sa micro ci biir jumaa ji di wax parce que nag ñun ñëpp ay jullit la ah. mhm. bon xam nañu aussi li xew ci réew mi. kon daal da ngay rejoindre président ci li mu ni li ni mel. à pour cent. d'accord parce que li mu wax na ko. Mhm. ñu koy vivre. et tout ça c'est-à-dire que imam yi tey ba muy wax ay imam rek a fa toog mais imam yëpp dañ ko jox dëgg li tax mu am quelque yeneen imam ya ko imam ya nekk di xutba loolu ña fa toogoon wax waxuñu ko xanaa am na ci kon ñoo xam ni duñu imam hmm. d'accord ah, Mbow sa gis-gis par rapport ak euh, lu ni mel waaw defe naa ni euh, président de la république Macky wax na si kanamu Barack Obama ni Sénégal euh, Euh, dégg nga maam du mës a nangu li nga xam moo di mbir góor jigéen. Mm. wax na ko si kanam Justin Trudeau. Mm. premier ministre Canada. bu ñu mm-hmm. tam rappelé waat na loolu yëpp Demba. Euh, waa plaidoyer. si mm-hmm. li nga xam moo di euh, reconnaissance su droit avocat LGBT. Mm-hmm. donc wax na ko waxati ko. defe naa ni bu ñu amee suñu dëkk nag. ay institution de surveillance sociale. ak ay institution yu ñi nga xam ne ñoom tamit ñoo wëlbatiku nekk institution de régulation sociale. ñu tudd Tivaouane. ñu tudd Touba. ñu tudd na euh, Baye ñu tudd mm-hmm. Yoof ñu tudd Léona Niassène mm-hmm. dafa naa ne amul mënuñoo xalaat ni dinañu am njiitu boo xam ne dina am sañ-sañ mm-hmm. ak euh, li nga xam ne moo di loi jëm wala dëggal li nga xam ne moo di góor jigéen euh, dëgg la naam man su ma jàkkaaroon ak président dinaa ko ne mais président dëgg la naam li wax man gën naa ko de li nga wax ni góor jigéen tànk yaa ngi fi waaye laata ngay dem xamuñ kañ ngay dem amaana 2024 bi nga pare amaana donc léegi lii nga war a def di tëggal loi boo xam ne bu ñu demee way bi sa ginnaaw dañ way di way mm-hmm. kon daal yow jàpp ni euh, coppite ko ci indee tamit non tëgg mm-hmm. loi boo xam ne dañ ne au loi bi mm-hmm. que itam pour pour on se souviendra nga xam ne posé na ko ni mu waxee da ngay sentir que dafa ni ñu tëggaat ko amul sens vu que ni observation damay jàpp ni effectivement LGBT loi bi code pénal Sénégal du ko mhm. te loolu moom boo demee ubbi ko gis ko mhm. mais xam nga LGBT itam dafa am évolution évolution boobu nag par rapport à leur agenda par rapport à leur calendrier par rapport à il faut tamit chaque fois ñun tam ñuy indi ay coppite ñuy andi ay coppite yoo xam ne mhm. a ko kon doit mieux on ko loo lépp encore une fois moo xam proposition bi ngay def ak na koy defee toujours ak jaarale ko si yoon. Mhm. mais di fàttaliku ni toujours parce que moi le dis toujours. Mhm. le président de la république c'est une institution. Mhm. mooy véritablement le premier du Sénégal ñoo ko ko nangul. mooy le gardien la constitution bi ñoo ko ko nangul. mooy le chef suprême des armées ñoo ko ko nangul. mooy nommé à tous les postes civils ñoo ko ko nangul parce que ñoo ko jox pouvoir yooyu. donc kooku nag dañ ko war a mën a delloo cër. Hmm. cër nag en institution. Hmm. donc même ki nga xam ne dafa farat moom ak faregut moom ak ki nga xam ne wote na ko wala woteelu ko. Hmm. bu wëlbati ko ba ñu fal ko il est le président de tous les Sénégalais. le président Macky Sall euh, n'est pas le président de l'APR ou de Benno ou de ses affiliés ou de ses militants. et de ses partisans c'est le président tous les Sénégalais. donc étant donné que moom mooy président de tous les Sénégalais. moom itam xam ne proposition la. gis nga dama naan sax souvent. di dina baax nga am task force boo xam ne euh, ku def proposition sax nga noté ko après on ñoom seen bopp ñu xam ne effectivement dinañ am loo xam mm-hmm. dafa am ñoo xam ne dañu nekk si président wala boog jege nguur wala boog jege ki nga xam mooy njiitu réew mi euh, nax ko nax ko di ko andil ay dossiers yoo xam ne suba mm-hmm. ci leen dëkk il se réveille véritablement dans un cauchemar mm-hmm. pour lu tax Abdou Diouf ay jamono amaana xëy na gëmoon na li ko doon andil mais Abdou Diouf moo toog si rajo ne musuma xam ni Sénégal ñi fi ndekkee euh, meew bu juróomi dërëm. Mm-hmm. musuma xam ni Sénégal ñi fi ndekkee café bu juróomi dërëm. te pourtant yeggoon nañu niveau boobu noonu. Mm-hmm. mais est ce que ñaka daan jébbal dossier yi daan nañu ko wax dëgg-dëgg. Mm-hmm. les réalités donc même souvent quand on dit que le président est le plus informé il faut savoir nuancer. parce que souvent lañ lay andi ak la xew dëgg-dëgg du méngoo. donc damay jàpp ni le président. wax na ko waxte ko réitéré na ay propos man gëm naa ni euh, ngóor jigéen moom am mus am place. Hmm. waaye nag man bëggoon naa vraiment suñu wóoram mu tëgg loi boobu noonu parce que ça fait toujours des réformes ça fait toujours partie des réformes. Hmm. te moom moo ko bind si livre am euh, wax ko si science de l'éducation li ma rëccu si sama premier mandat mooy je n'ai ça fait des réformes. te réforme nag moom yaatu na te defe naa ni loolu war na ci gën a mën a xuus. d'accord moom bu ñu ko déggee ni mu waxee loolu dafay soutenir li nga xamante ni mooy réforme yi parce que bu ñu ko defee tamit du ci yàq dara. même su fekkee ni acte contre notre loi bi mu existé na ba pare mu nekk article 319. ça existe dafay gën a dafay gën a da koy améliorer rek. dafay gën a conforter dafay gën a réconforter. dafay gën a conforter position Sénégal. dafay gën a réconforter ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ñëpp Sénégal boo jëlee nous sommes pratiquement 100 pour cent de croyants. boo bëggee 100 pour cent de croyant Sénégal yi athée man mosuma koo teg bët. Sénégal yi daal da ngay nekk jullit maa nga nekk. te war a athée moom dégg rek. waaw waaw mosuma ko mosuma ko gis maa. Mm. waaw mais ñun dara mën a toppandoo tubaab yi nag. dañuy déglu gars yi rek occident dañuy dem ci occident di leen toppandoo rek mënul dégg rek dafa ne ñun moom la ñuy. waaw moom ñoo ko mën. Mm-hmm. donc typiquement mm. boo xam ne di nga xool dëkk ko. Mm. mais extraordinaire. Mm. ak li nga xam moo di l'église. ñun dañuy dégg sax ñu ne dialogue islamo-chrétien. man dama ne dialogue islamo-chrétien aajowu fi. Mm-hmm. parce que balaa ngaa dialogue fekk